de damay wax man parrainage bi dama si dama si parce que en un certain moment j'ai décidé d'accompagner le président Macky Sall en tant que candidat et en, tant que Macky aussi hein, euh, par rapport à ses projets et programmes. Donc je pas parrainage parce que j'ai travaillé aux côtés de M. Cheikh pour pour le parrainage du président de la République au niveau euh, de Pékin, de Touba et de Thiès pour lesquels on a déposé 41 000 parrainages, sans compter euh, ceux de Thiès. Mais ce qui est regrettable, d'abord, il faut s'en féliciter. Je m'en félicite du parrainage, parce que quand même c'est innovant. Et que nous avons vécu les élections législatives. Ce que nous avons vécu pendant les élections législatives euh, était inacceptable pour un petit, petit pays comme le Sénégal, où on se retrouvait avec plus d'une vingtaine de candidats et qu'on finisse tous les électeurs se perdaient dans, cette, dans ce brouhaha, dans ce tourbillon. Aujourd'hui, je pense que le parrainage va enfin nous permettre de filtrer ceux qui sont capables d'aimer. D'abord en termes d'organisation. Parce que quand un parti politique n'est pas capable, de manière objective, de, regrouper 48 000 parrains, hein, et qui, en deux mois, moi je me demande comment ce parti-là sera capable de, mettre en place un programme, un, euh, projet de société euh, et à travers ce projet de société-là, de le mettre en œuvre. Alors, maintenant, le parrainage, ce que nous avons vécu, ben, ça allait dans tous les sens. Il y a des partis qui ont été recalés, parce que, par exemple, un parti peut être fort dans une localité, et ne pas être fort dans les autres localités. Et nous avons constaté des manquements partout. Nous avons constaté aussi que dans cette recherche du parrainage, les vérités vont sortir. Les gens disent que oui, de nous qui, de nous Mais ceux qui ont été à l'origine de ces parrainages-là, certains chefs de, parti, ils ne pouvaient pas pousser certains au bout. Qu'ils nous disent où est-ce qu'ils ont pris leur parrainage. Moi, je dis, je ne suis pas d'accord sur ça, sur ça. Je ne participe pas. Et je continue mon combat jusqu'à obtenir une victoire. Mais tu dis, écoute, non, non, non, il faut y aller. Euh, euh, d'accord, ma si hein? Euh... d'accord si ba nga nous Nous... Nous... ba numéro un combat politique 23 euh, juin si là ñu assemblée nationale ba peuple bi taxawé né li du fi am fi parce que en réalité peuple bi ni mu sonné élection législative bokku ko et puis sénégal a aussi donné bëgg xam kan lañuy jox seeni voix xam nga bu ñu élection présidentielle tay ñu am 6 candidats wala 7 candidats tay d'abord en terme de temps ngay tok ci kanamu télévision bi di xol parce que 12 candidats 14 candidats ku nekk wara jël 3 minutes 6 minutes hein ba paré temps bi mi consacrer mais aussi li ñi dépenser élections pour ñom je crois que parrainage bi tey li mu wane mooy hein? ku si nekk li nga mëne ci walu organisation mais aussi ku si nekk li nga mëne ci walu mbooloo mais en dehors de ça amna ño ñoo xam ne dañoo jënd seen parrainage parce que mënut mënut mënut a nekk que ñu am 100 candidats yi dem départ ñu retrouvé wu ñu ñëw ñëwee 5 ñoo ci baax d'office amna 3 yo xam ne kenn ne baaxuñu parce que bu fekké def parrainage dañ tek ay conditions dañu né benn nit amul droit bindu ci beneen si ñaari liste.

Je légiférer bi mu je ñëpp d'accord nañ dem sur la ligne de départ La ah, ligne de départ mom ala kulli alin mom day daanu amna ño xamné day bañ daw daw parce que ni muy démé si course bi ku nekk da ngay jël ci jël sa way organiser sa pour daw bu fekké nak dañoo départ nag ngeen nekk ngeen nekk wala fukki wala ñaar fukki ngeen départ ah juróomi fas daw si ba arrivé juróomi fas yi di tro ñett yi di trotté wu nank pour egg si je crois que bu ñu eggsee bu ñu nee maintenant kaa leen jëm si cër bi bu boobaa nañu egg see dem maintenant je crois que li dafa arrangé peuple Sénégal euh, opposition bi il faut ñu jóge ci situation bi ñuy nekk Sénégal en perpétuelle campagne électorale gis nga bu ñu jógee ci parrainage bi jóge ci élection yi état bi ak population ak manam assemblée beeg yi fiy génn war nañ tegaat beneen filtre bo xamne ne que ni bu dem élection day ñu xam parce que du ku nekk ko am sa caution rek yawo dem élection fii bu élection diké da nga gis ñoo xam dañuy jël seen jàppoo jël seen euh, organiser seen programme dem au niveau international wax ak ay borom xaalis ne len kat man mën naa nekk deme président de la République ñu jappalo commencer le préfinancer ñu fogg ne ñun xamuñu li xew si loolu yëpp si dëkk bi boo nous bëgg a sénégalais nous ñi retiré wu ñëpp en cours avant ñuy exercer vers cette 27 26 mais nous xam sommes fi ñu fi seen limite. mais xam en Afrique ah dañu perdre temps bu bari mm-hmm. une droit de perdre temps de faire perdre temps suñu peuple yi boo aux États-Unis les démocrates dañu en primaire les républicains en primaire nga en France les socialistes en primaire la gauche extrême droite am en primaire hein, la droite en primaire. ñu xam ñaata candidat ñuy ñëw élection mënuñu nekk fii ñu nekk ci niveau de développement ak dëkk bi fi mu toll ak dëkk bu ñu daan wax y a 10 ans 15 ans y a ans dëkk bu amul pétrole amul amul or amul diamant ah naka lay mën a développer tey yàlla d'un seul coup war ñu am loolu yëpp bala ñoo def dara nañu jël suñu dëkk bi ñu ñàkk ko bañ ko jox ay nit yoo xam ne bu ëllëgee dañuy tayle Sénégal si may wax ak yow nii parenage bi nii bu ñu si génnee élection yi ñu jëm. élection yi ñu jëm après yi siy topp nit ñi dañu xam ku ci nekk na ngay taxaw man suma ma xamee ne su ma wóoree ne demee su demee parrainage sama localité du ma mën a du ma mën a nekk euh, du ma mën a nekk candidat wala du ma mën a dem fenn mais du ma si fekk te du ma sonal Sénégalais yi mais ñu dugal si processus boo xam ne da ngay génn élection présidentielle ba élection législative rek deux ans un an deux ans après rek les trois autres années nga installé waat dëkk si bi si perpétuel campagne électorale dafa war a jeex nit ñi dañu war a dem liggéeyi parrainage bi lii si xew dama ne la

en âme et conscience xam nga ni nga dafa am say parrainage te loolu ma lay wax noonu ah ñu ngi may seen maa ngi leen di déglu bu ñu duggee si camp bu ñu bëggee bu ñu duggee si campagne électorale am na ñoo xam ne mën nañu wax ñu wax leen fu ñu jëlee seen i parrainage ñoom xam nga aussi parrainage bi di recenser nit ñi du nit ñi ñëw rek euh, maanaam euh, bindu mais bu fekkee yow am nga possibilité accéder si photocopie carte d'identité nga dem bindu ko sa liste ah fekk kooku moom carte d'identité joxe na fenn bind na fa pare na fenn ba pare mais boo ko defee bu daanu boo daanoo yaa daaneel sa bopp yaa daaneel sa bopp li may wax nii am na ay leader yu may déglu te yu ma wax nii li lu wóor la kon ah ku ñu forclos rek nanga nangu doon ñu laa forclos am na si ñoo xam ne nag ay leader yoo xam ne nag système bi ñu ko defee moo leen daaneel bu fekkee dañ nga ne dëkk bu nekk région bu nekk am fa 2000 eh, te yow xam nga ne yow tu peux être représentatif à Dakar mais doo représentatif à Tamba doo représentatif à Kédougou mais pour nga am fa 2000 2000 dafa bari de lu métti doon mën nga am 50 000 Dakar mais 2000 mënoo ko am mënoo ko am Tamba kon loolu na ñu xam ne système bi bi muy ñëw lool lool bu fekkoon dañoo boole woon ñoom ñëpp nag système bi d' ñu ko lii la ñu bëgg xeex ko mu jaree nañ ñu daf ñu def 23 23 juin mu jaral leen ni xeex ñi Abdoulaye Wade doon xeexe ñu xam. mais nous sommes responsables. moi je crois que si nous sommes tollu ni mais ñu sante yalla bi nga xamé ni sénégal mi ngi dem élection peut-être au maximum 8 candidats 5 yi à 3 yi au moins je crois que 8 candidats à la présidentielle sénégal mën nako gérer et buñ ci joggé ñu defat benen tri en tout cas man dimay ñaan rek moy euh, Sénégal il y fi génn ak jàmm Il y a des Sénégal Maintenant, présentement moi je vous parle candidature du président Macky Sall la soutenir par rapport à ses réalisations pas par rapport aux questions politiques et pour questions de justice moi je préfère avoir un président qui a un deuxième mandat pour un Sénégal stable que d'avoir un autre que d'avoir un président qui vient au Sénégal et qui amène le pays dans une, instabilité totale il faut qu'on fasse très attention fini au Sénégal Nous nous attention parce que nous sommes attention. nous opposition attention. Nous waye nañu xol homme ak nit de circonstance ak un programme ak Sénégal nous ah, est-ce que dañuy ans? xool nañ dëkk yi ñu wër yëpp dëkk yi wër Sénégal yëpp actuellement yi fi dem élection génn wala ak yenn situation yi mu am ay yenn changement yu metti yi amul benn dëkk bu si stable tey dañ ko sant yàlla nag ba suñu ngóor ba si bërki démb Burkina Faso bu mujj bi xool fi mu mujj tey kon nañu nañu nañu nañu wax ak sénégalais yi objectivement te képp koo xam ne que ne da ngaa bëgg fexe pour jël réew mi. ah pour utiliser pour partir pour pour aller fin wala pour pour pour d'autres courants yàlla bu ko yàlla yàlla bu ko yàlla jox parce que a amul dara lu gën suñu stabilité amul dara lu gën suñu bu ñu bëggee nag ñu toog si ay débat li may wax nii ak ku ngeen nous woon mën nañu dans des débats télévisés Sénégal yi di ñu déglu ñu wax objectivement ñu xam kan moo gëm Sénégal ak fin fan la ñu jëmee ëllëg. ñi doon wax que dañ leen dañ leen recalé parce que. Euh, ay candidature la ni yoo xam ne kii ne euh, mën nañu déranger Macky Sall moo tax ñu indi parrainage le président Macky Sall parrainage ñooñu parrainage bi bloqué wu la ñooñu dàll nañu parrainage est-ce que xam nga ma la wax ñooñu ñuy wax muy le candidat Karim Wade ak Karima Khalifa Sall ñoom jàll nañu parrainage ça veut dire que et puis la wax leen dina dafay révélation de taille tey à part Sonko ni ñëpp kenn amu si expérience 90 pour cent. à part ni mo wax ku mel ne Pape Diouf il est fort à Dakar ak à Touba mais bu ñu jëlee système bi fi 2000 2000 2000 mënu ko certaines régions parce que fofu du mat mais à part ça nit ñuy recalé ñep kenn amu si expérience politique man bi cas bi ma ci gëna a moy le cas de Bougane parce que Bougane am na nit am na nit mais problème bi moy il n'avait pas de politique politique autour de lui yu ko doon encadré ce processus bi ba nga xam kenn ne du daanu sa parrainage vous avez mosaan dégg mu ne la 700 700000 parrains mais vous avez ne 700000 parrains yooyu 68000 lañ ci soxla répartis dans certains pays dans dans plusieurs plusieurs régions Beaucoup réparties dans dans les différentes régions parrainage boobu muy am ci euh, région bu nekk war na travailler ba xam ne région bii ñii moom inconditionnel si fi ñu ñu fenn nga jël ñooñu ko jël liste d'attente mais dafa trier mais politiquement. Si les dames moo problème politique bi Sénégal nous attention parce que bi yi sans les politiques ils étaient obligés de revenir dañuy ñaan yàlla dañuy ñaan yàlla may ñu di ñu di Sénégal je défie n'importe quel homme politique Sénégal n'importe quel leader bu ma Sénégal wala bu def lu def pour Sénégal dama ëpp xaalis mais li ma def pour sama pays mën ne ko bu ko évaluer en terme de rendement rendement kenn suñu ëpp def seen seen réew mais nañu delloo si wax suñu xel ñu Sénégal am nga bi ngay wax maintenant li des eh, man du dugg détail c'est des détails politiques et juridiques du dugg je laisse la justice faire son travail vous parlez du cas de Karim Wade Khalifa Sall Karim Wade man na jëkk a àndal dugg si terrain politique à travers le Sénégal maa jël loxoom defar ko turu banlieue yëpp mag moom ñu ànd. boo xalaat bu daan am Europe sous le régime de euh, Diouf ñuy moom ñoo ko daan def ak Talla Sylla ak Alioune Diop ak benn waay suñu benn mag bu ñuy wax seenu Kane donc ñun ñëpp xamante nañu ne ku nekk mëne sa combat xeex bi fii la si biir Sénégal. Merci de vous abonner à Pikini Productions. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et laissez un commentaire.